jàmm ji Alma. Alma moo nekk nii. Alma moo la wan ginnaaw. arbitre bi sifflé na. Alma moo la wan ginnaaw zéro arrière moo la wan kanam. ñoom ñaari xale yi ñu ngi leewaatoo. door na ko mu daanu waa. waa. waa. waa. waa lii la la. waa lii la la. waa Alma mi lu ko dal. non non zéro arrière arrière zéro arrière arrière door mu ne këpp waa lii la la waa lan lay wax waa koñ ba hee ay waay zéro arrière xamul sax lu ko daan Adama zéro arrière xamul sax lu ko daan ndeysaan oh almaa da koo door mu daanu ndeysaan Allemand daxa dóor mu daanu ay waay Zéro arrière waaye Zéro arrière arrière na Adama arrière na e Allemand gars yi ne leen dóor bi dalul de dama koy jokkaas ah? dama koy jokkaas dóoruma ko de dalul dal na mais jokkaas la ah cokkaas la cokkaas la bàyyi ji cokkaas la ah. non non cokkaas xam naa dafa man cokkaas laa jàpp rek dama doon cokkaas noonu bilaay walaay. nga ma. waaw bëggoon ñu bëriwaat. bëriwaat. kii kii aw ma fayam. yàlla na ko taxaw. booy bi am na mag am na xale yoo xamante ni am na mag yoo xamante ni doon nañ xale ba maa gët. booy bi xam na lu ñu xamut. te ku am kóllëre la yàlla na ko yàlla defal jàmm. maanaam mooy semence bi ay wax. lii mooy sa ñaari combat. six combats. ñaari victoire. quatre quatre victoire deux défaites. quatre tegale. sama premier combat laa daanu ma déglu laa daanu ma déglu ne. ma déglu ne. mais ma gëm sama bopp di liggéey. damaa bokk si lamb. Saalum Saalum la te waa Kër Mbaye dafa bari ay champion ay champion ñoo fa man maa fa gën a doon man maa fa nekk cuune Kër Mbaye man ñëpp a may jàngal bëree ñoom Ibo ñëpp dañ may jàngal bëree. ñoom laay biri sili man dañ may jàngal bëre billahi wallahi kenn may faal Koulibaly de laa soxla nen billahi li muy cëmbar Koulibaly li muy cëmbar cëmbar ma ma neexu dama ko soxla billahi da kii Koulibaly de dama koy xool ree ko rek mu toog alma ah, xarit bu bees alma la tudd dafa leer barki yonent maa ibo suñ benn benn koñ la rek ñëwal kër Mbaye Fall nga seet si ma. Ridis fukki laa nuyoo yam